yi gën a sell yi gën a tedd di ko jëmale ci sunu sang sunu sëriñ Cheikh Mahamadul Muntaqa waaye di tofal kilifa yépp di teg nuyoo bi ci loxo yi sëriñ Moustapha Sarr mi nga xam ne moo fi teew teewal fi kilifa yépp waaye it di ko jaare ci loxo loxoy njiit yi daayira bi nga xam ne ñoo teew fii teewal fi sëriñ Afia Bousso imam di nuyu mbooloo mi yépp di teg nuyoo bi ci loxoy soxna Bintu ak soxna Mbayang di leen sant bu baax a baax waaye di leen delloo njukkal di leen ndokkeel ci liggéey bu sell bi nga xam ne ñi ngi koy def di ko taxawe fii ci biir jumaa ji di ko defal sëriñ bi nga xam ne ku ko liggéeyal waxoon na ne këram ci digg àjjana lay sax liggéeyal sëriñ bi nag daf di aw waar wu yaatu woo xam ne kenn ku ci ne rek boo ñëwee danga nga ciy bayee sa yéene muy liggéey bu yaatu bu gudd aw yoon waaye it bu bari barke di liggéey boo xam ne dañ ko fa fekk sëñ bi joxe ci ay tegtal wane ci aw yoon yar ci ay mag ñoom it kenn ku ci ne def ci bay ci sawar ba mu mat sëkk muy liggéey boo xam ne it naka jekk góor ñi ak jigéen ñi ñoo koy séq kenn ku ci ne feeñal ci sa yéene xam nañ ne sëriñ bi radiyallahu anhu bi ñu koy gis ci suñuy bët walla ñu koy dégg bi mu fi nekkee dafa àndoon ak ay mag mag ñooña tey ñoom lañuy dégg fu ne ñu am am mbooloo mu baree bari loola nag la leen ko mayoon mooy dañoo saxoon di liggéeyal sëriñ bi waaye it di gindiku ci ay tegtalam di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem mag ñooñ la yar tërbiye leen tarqiya leen ba xam ne mate nañ lañu doon la mu bëggoon ci ñoom mu samp leen ci ay barab ñoom it ñuy yare di def tarqiya ànd ak mbooloo moo xam ne dañuy def xidma ba àgg fa ñu àgg ba tey ku lu dégg ku baax ku dégg lu baax dégg leen fa waaye it dégg fa seeni jëf ni ma ko waxee liggéey la boo xam ne góor ñi ak jigéen ñi ñoo ko daan ànd waa kër sëriñ bi kenn ku ci ne xamoon na ni ñu daan liggéeyee ci biir keppaaru sëñ bi ki di yare ak tamit di jubbanti lépp lu góor ñi daan def daan nañ ko def ci seen wanag muy jàng xasida jàng alxuraan yar ay ndaw waaye ñi nga xam ne it ñoo nekkoon mag ñi nekkoon ci ron gaa yu baax yi toppoon sëriñ bi it daanañ bay seen waar ci liggéey bi àddiyee ju musaan jukk ni ko góor ñi joxe noonu la ko jigéen ñi joxe mën nañ cee rekk tudd ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett yi nga xam ne sëñ bi sase woon na ko ca yi njaareem ni ko góor ñi daan joxe noonu la ko soxna yi daan joxe waaye it jumaa ji bi ñu ko doon tabax wax nañ ne ni góor ñi daan liggéeye noonu la soxna yi daan liggéeyee di ñaq di defal jumaa yi jumaay njaareem jooju nee nañu sëñ bi bi soxna yi gisee góor yàlla yi di nekk ci jumaa ji di liggéey ñoom it dañoo def délégation dem ci sëriñ bi sàkku mu jox leen ndigal ci ñu mën a participer ci liggéey bi bi ñu ko sàkkoo sëriñ bi ne leen mën naa nekk de waaye nag benn charte rek laa leen di chartal mooy fexe leen ba bu ngeen di liggéey bu góor ñi ak jigéen ñi jaxasoo daan leen ndax góor ak jigéen buñ jaxasoo dafay mel ne sawara akum ñax seytaane mooy jaar ci seen diggante nekk ngelaw li daanaka diggante bu gàtt seytaane mën na leen a jaxase daan ne kon li ma leen di digal mooy yéen jigéen ñi ba ngeen demee bëgg a barkeelu ci liggéey bi dee leen jël xeer yi di ko yóbbu ci kër Serigne Modou Moustapha te boobu moo féete woon càmmooñ góor ñi bu ñu jëlee doj yi ñoom yóbbu ko ci soxna kër soxna euh, Faati Mbàkke mi nga xam ne moo nekkoon taw sëriñ bi taw kër ga moo féete woon sow loolu lépp li mu ci jublu woon rek mooy bëgg a tàqale góor ñi ak jigéen ñi jigéen ñi jàgg def jaloore lool ci yoonu murit kenn ku ci ne xam na ne soxna Fatou Tacko Diop moom la sëñ bi jaarale woon ci digganteem ak soxna yi lépp lu musaan bëgg wax wala mu bëgg a digle ci loxoom la ko jaarale mu jotali ko soxna yi waaye kenn ku ci na it xam na euh, njàmbaa rek soxna Mariam sàll mi nga xam ne moom la sëñ bi féetale woon ci digganteem ak waa këram nga xam ne moo daan baagante ci diggante sëñ bi ak soxna yi Euh, liggéey bi comme niñ ko waxee liggéey la bu yaatu rawatina fii ci daayira Muxaddamatul Xidma yaatuwaayu liggéey bi nag sëñ bi moom moo ko sàkkal boppam moo ko bëggee noonu ndax dañuy wax ne Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu bi mu làqoo ci saaxiir ci atum 1346 ci gàddaay gi 1927 cheikh Mouhamadul Fadal ak cheikh Mouhamadul Bachir ak cheikh Ahmad Numbe dañoo gaaw dem Jurbel dañoo tukki dem Jurbel bañ demee fekk fa cheikh Ibrahima Fall ak cheikh Muxtar Bintaloo ñoom juróom ñépp ñu def délégation ànd dem ci cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moom moo wuutu sëriñ bi biñ demee sëriñ Modou Moustapha daal ànd ak ñoom ne leen nañ dem ca néeg ba sëñ bi wàcce ab liggéey. bi ñu demee ba toog ñoom ñëpp Cheikh Maodo Moustapha daal di leen di fàttali ak fàttali gu am solo fàttali googu moom moo ëmb liggéey bi nga xam ne mooy xidma ne leen wali yu baax wali yu baax wii tëdd de te mooy sëriñ Touba radiallahu anhu dañoo àndaw nag moom rek te yàlla tax waaye tey nag wuy ji na boroomam waaye li mu fi nekkee woon bi mu jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy yitte ju kawe. ju sax dàkk yitte joo xam ne dara mënu koo yëngal yitte ju kaw a jooju mu jaayante woon ak yonent bi sallallahu ci la nekk bi ñu koy gis ba tey jii ni ñu làqoo yitte jooja mooy lan mooy la mu waxoon ne ax axdimuhu ila jan na damay sax di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi nekk ci waar wi ba keroog may tàbb bi àjjana àjjana jooju nga xam ne mooy daarul xaraari wal munaa wol minna Cheikh Modou Moustapha daa ci teg ne ginnaaw nag ñun ñoo ko wuutu ñoo war a sàmm am ndonoom ñoo war a àggale liggéey bi looloo tax ma indi leen fi yéen juróom yii fi ma leen indi it mooy fi Sëñ Tuubaa mujj nooyee fi la wàcce ab liggéey ci saahir li ma bëgg it mooy ñu seedeloo barab bi ne dañuy yeesal suñu jaayante ak sëriñ bi bu ñu ko defee danañ ko defal suñu bopp danañ ko defal murid yëpp murid yi nga xam ne ñooy dund danañ ko defal suñuy njaboot yi nga xam ne feeñaguñ jamono daan jaayante bi nag ñeenti mbir yii la ñeenti mbir yi kon mooy xidma bi mooy liggéey bi bi ci njëkk mooy xam-xam ne leen sëriñ bi radiyallahu anhu dafa waxoon ne bépp naal boo xam ne teguwul ci xam-xam boroom xam-xam it jiitewu ko lañ ca bëgg duñu ko am daan ne kon ñun ñëpp nañu jaayante képp koo xam ne yàlla sedd na la xam-xam naan bu taxawati te laaj xam-xam nga def ci sa xam-xam daa ci teg ne ñaareel bi mooy alal alal joo xam ne ki ko moom daf koy def ci yoonu yàlla daan ne xam-xam kat am na solo lool xam-xam bi ma njëkk a wax am na solo lool waaye fajul jafe-jafe yëpp fajul jafe-jafe yëpp kon ñu ñëpp nañ jaayante ne lépp loo xam ne dafa ñëwati te laaj xam-xam ñun ñëpp danañ ci def suñu kem kàttan daan ñetteel bi nag mooy doolewu yaram doole yaram kàttan daan ndax xam-xam ak alal li muy am am solo mu ñu ñoo sottal naal yëpp am na ci naal yoo xam ne doole moo koy sottal kon nañu jaayante fii ñu toog ni képp koo xam ne yàlla dénk na la doolewu yaram te ñu soxla ko ci murit gi nga def ko ci te sëriñ bi tax liggéeyale ko sëriñ bi daan ne ñeenteel bi nag muy lu am solo tey loo te nekk loo xam ne ñu baree bari dañ ci bàyyi xel mooy xalaat bu jub am vision bu sori ndax teg ci Cheikh Modou Moustapha mooy wax teg ci ne ndax bari na ay askan yoo xam ne am nañ ñett yi njëkk a wax am nañ xam-xam am nañ alal am nañ doole waaye taxul ñu jëm kanam la ko waral mooy dañoo ëmut ay intellectuel dañoo ëmut ñoo xam ne dañoo am ay xalaat yu jub ndax daal ne mbooloo lu mu bari bari ña la ko mën a jubal man leen a benn le mooy ay xalaat yu jub yu jaar yoon daal ne kon ñeenti yii ma wax nañ ci jaayanteeg sëriñ bi nañ ko jaayante defal ko suñu bopp defal ko njaboot gi yëpp it defal ko murid yi fi nekkut yëpp kon loolu mooy liggéey bi kon kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa a ngoog bi ci njëkk mooy xam-xam bi ci bi ci tege mooy alal bi ci tegewaat mooy doole bi ci tege mooy ànd di xalaat xalaat bu jub daayira Muxaddamatul Xidma nag ñeenti yooyu moo ko lal xam-xam moo fi ne te am na ay commission yu boppam alal képp koo xam ne da nga bëgg a defal yàlla ci jumaa ji liggéeyale ko sëriñ bi doole mooy ñi nga xam ne dañuy xëy si di baleeka minaas ak defar barab bi waaye tamit xalaat bu jub te mooy dirigeant yi nga xam ne fu ñu toll dañuy xalaat ci lu jëmale daayira bi kanam loolu lépp nag bu ñu ko defee lañ cay amee mooy barke xidma li muy jur mooy barke euh, sëriñ bi dafa doon wax ne barakatun bi nay li xayri ni'ma mu tunsil muridina ana alxidma barke barke eh, nit lu muy liggéeyal lu muy liggéey te yàlla rek tax ëllëg la koy fàtteloo mooy barke bi nga xam ne moom lay am barke bi nag mooy indi xéewal gi daat koy leeral daan ne baraka ñeenti baat la wala juróom muy baa ak raa ak kaaf ak taa ak ha daal ne bu dee baa baa gi bala ngaa am barke dangay ngay jaayante ci ay caaxaan doo ko defati moo xam la ca nëbbu ak la ca feeñ daal ne caaxaan yi feeñ mooy ngay jëfandikoo say cër ci amul njariñ caaxaan yi nëbbu nag mooy ngay xalaat ci lu dul dëgg loolu mooy baagi raagi nag mooy am pëstéef bu kawe am yitte ju kawe dara bañ laa fanq dara bañ a nekk ci sa kanam ku dul suñu borom kaaf gi nag mooy feew fekk lu baax nga fexe caa am sa wàll nga fexe caa jël sa wàll kas bul xuyóor bu dee lu ñu war a yéene nga yéene ca fexe ba kenn du la ca ëppale bu dee lu ñu war a wax nga wax ca ba kenn du la ca ëppale bu dee lu ñu war a jëf nga jëf ca ba kenn du la ca ëppale taa gi nag mooy saxoo tuub ndax nit ay jëfam am na ci yoo xam ne daf koy rëcc mu xam ko am na ci yoo xam ne daf koy rëcc du ko xam waaye sëñ bi nee na lu man di doon ngay fexe bay tuub foo toll gëm ne suñu boroom moom lépp loo def rek xam na ko xëy nag mooy hadiya di joxe sa alal te yàlla tax nee na joxe sa alal te yàlla tax ci ngay mën a amee ak gindiku goo xam ne moo lay dugal àjjana gi nga xam ne moom la suñu boroom dig ñu ragal yàlla teg ci nag wax ju am solo ne lii moo lay wan ne barke kenn du ko aale kenn du ko maye kenn du ko sàcc waaye dañ koy jënd njëg gi nag mooy loolu mooy ñeent yooyu mooy fexe ba kenn du la gis ci caaxaan am pëstéef bu kawe foo fekk lu baax nga fexe ba jël ci sa wàll di saxoo tuub kon nee na barke ci njëg lañ koy amee waaye it ñi ngi koy amee ci ab taalibe fu topp fu mu topp fu mu fu mu toll di topp ndigalul sëriñam ndigal li nag sëñ Tuubaa weesu ñeent yi ma lim muy ñeent yi waxoon léegi daan lii bu amee mooy coono bi coono bi nga daj ci àdduna mooy loolu moo tax ngeen gis mag ñu baax ñi coono bii lañ doon liggéeyale sëriñ bi biñ noppee nag barke bi mooy walangaan ba egsi ci e, ñépp rek kon liggéey baa ngoog xidma baa ngoog daayira mu xadamatul xidma it foofu la ab liggéeyam jëm di teqale diggante góor ñi ak jigéen ñi ak it di jiite lépp loo xam ne dafa aju ci jumaa ji ak ci barab yi ak ci jullikaay waxiit bi di eh, dugal loxoom ci lépp loo xam ne dafa jëm ci liggéeyu sëñ bi moo xam dafa eh, lalu ci biir daayira bi ci jëmmam wala mu seet kook yeneen daayira yi ci des ndax ñun li ñuy soxal mooy dañoo jël bayitu suñ tubaab yi teg ko ci suñu kanam mooy lépp luy defar rek dañu jàpp ne suñu loxo da cee war a dugg wala tudduqi leen musliha fii yadi wa fii daari wa thabbitanhu bil fii sëñ tubaa dafa ñaanoon ne nanga nanga na dugal kuy defar koo xam ne defar moo ko tax a jóg na ko dugal mu nekk ci sama kër te kër sëriñ bi wala kër yi sëriñ bi kër gi ko ci gën a yitteel mooy néegub yàlla bi te mooy jumaa ji ñu xam ne kon liggéey bi xasida gi gi gaa yu baax yi doon jàng léegi jasaaka yaa xillu ibrahima mawlaaka am na ci bayit woo xam ne tënk na liggéey bi te mooy fadum ala sidqi wal ixlaasi mujtahidan fi sirri wal jahri kay tan mu masaa yaakaar nangay sax ci dëggu dëggu mooy pas-pas bi nga amee dangay yemale ku la ca fekk ak ku la ca fekkul wala ixlaas mooy li ngay def dangay teg suñu borom sa kanam ak sëñ Tuubaa mi ngay liggéeyal mujtahidan mooy doo ci tàyyi mukk fi sirri mooy boo ca wéetee wal jahri ak bula ci mbooloo mi fekkee yii yëpp bu fekkente ne mooy say jukko kaytan moo masaa yaakaar da ngay am ay daraja yoo xam ne bu ama bu amee fu mu du am fu mu kon jàpp naa ne kàddu yi mën nañ koo tënk foofu asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin al wa ala alihi wa sahbihi sawi rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi jotal ci nuyoo bi kilifa murid yëpp kilifa mboolem ñu bëgg lu baax kilifa mboolem ñu tënku ci diine ak lislaam muy sëriñ Muhammadul Muntaxa di ñaan suñu borom guddal fanam loolu te may ko wér ba liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Tubaa mu gën ci am ndam am na ci ndam waaye yàlla na ci gën a am am ndam te mu ànd koog ndax moom sagub sagub murid yëpp la sagub taalib yëpp la ndax Serigne Touba rek ko yitteel Serigne Touba rek koo ñor Serigne Touba rek la ma sa teg ci kanam moom la ma sa teg ci ginnaaw moom la ma sa teg ci fépp musta bëgg-bëgg àdduna loolu liggéeyal Serigne Touba ba laq na ngërëmal waajuram yi te di fi nekkoon yëpp laq na ngërëmal magam yi fi nekkoon yëpp loolu nag ak ak ak ak taalibe moo koy maye ak ak bëgg Serigne Touba moo ko tax am loolu mu am kon jotaay bi ñëpp yéene nañ ko ñëpp yéene mu yàgg fi. yàlla na ko yàlla defal am defal ko mboolem njabootu ko Sëriñ Tuubaa gi topp ci ginnaawam gépp nag di nuyu kilifa diine yu tedd yi nekk fii ci jataay bi xamaa suñ ci tuddee ñaar rek ñu yóbbaale ñu ci des eh, sëriñ Abdul Ahad Bousso ak sëriñ Jiili mii doon wax te wax ji rafet am solo lool yàlla nu yàlla may ak dégg ak topp wax ji rafet na am na solo mboolem kilifa yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax kenn nekk njul sunub nuyoo ak sunub siyaar di ko teg sa loxo ah, di leen jot lit nuyu mbooloo mi mu àndal muy bàyyi sàmbaan ak yeneen magitaal yi mu yi mu àndal seenum nuyoo ak seenum siyaar maa ngi ko jot di ko teg seenum loxo kon mbooloo mi fi nekk mépp muy góor di jigéen di mag di ndaw kenn ku nekk ñoo ngi jël sunu nuyoo di ko teg sa loxo jël sunu cant ak sunu gërëm di ko teg sa loxo liggéey bi ngeen liggéey nag ngeen gën cee ngeen gën ngeen gën cee am pastéef gën koo rafetal gën koo jàpp te xam ne lii ngeen am ñi ko bëgg bari na waaye du caageen ku jóg rek am ko ni Serigne Touba di tànne ay ay ay murit nga xam ne bëgg bokk ci yoon wi taxul nga bokk ci Serigne Touba mooy tànn ay nit dugal leen ci yoonu murit man ngaa jaxasoo murit lool bëgg murit lool waaye bu la sëriñ boobu rek doo ñëw man ngaa bañ murit lool nag bañ ko lool ba fu ñu ko tuddee nga nga teg ca lu ñaaw waaye bis bu la sëriñ bi woo rek foo mën a jaar bokk ci yoon wi kon liggéey bi bëgg cee bokk taxu cee bokk man cee bokk taxu cee bokk sëriñ bi mooy tànn ay nitam ñi war bokk ci liggéey bi mu tànn leen bopp boppam kon soxna Bintu yow war ngaa sant yàlla baax sant yonent bi sant sëriñ Tuubaa sant sa waajur Seex bu Saar jaamu sëriñ Tuubaa sunu waajur tedd moom ku xam na ko amut benn yitte amutoon benn yitte ba àdduna amutoon benn bëgg-bëgg àdduna lu liggéeyal sëriñ Tuubaa rek ci la daan xëy ci la daan gont musta yendu àll sa fanaan àll musta dem fenn lépp liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo moo ko ñoroon dara ñoru koon alal ñoru koon doom ñoru koon xaalis ñoru oto ñoru koon kër ñoru koon doo dem fenn ba fekk fa étage boo xam ne sëriñ Bassirou Sall jaamu sëñ Tuubaa ko moom bañ na ko sax ba ay terrasse su koy tabax sax doo am doo am escalier bu yéeg dem ci kaw ndax lépp bëggum bëgg sëriñ Tuubaa rek ak jël gum jël boppam lépp jox ko sëriñ kon kon boo dee njabootam di doomam ñu boole la ci liggéey bi war ngaa sant yàlla baax xam ni sa waajur la lam bëggoon muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek kon tey xolom sedd na fee mu tëdd ndax boo amee doomam ñu boole ci liggéey bi toll nii mu bokk ci njiit yi bokk ci jëru ni kon yow soxna si war nga saa boo xëy ni alhamdulilahi rabbil alamin yaa ngi ñu ko bokkal ñëpp di ñaan ci yàlla ak yonent bi ak Sëriñ Tuubaa nag saa borom dafa leen ci ndam ndax am ci ndam baax na lool ndax ni ko sëriñ bi waxee rek saytaane mu dafa bari lool lool te lu baax rek lay bañ a gis te seytaane moom ni ko sëñ Tuubaa waxee rek saa boo bëreeg moom ba daan ko rek takkaan na ngeen ma jóg taxawaat du sonn du tàyyi du toqi kon nag yàlla na yàlla féewale leen ak seytaane ba seytaane bañ ci am wàll ba liggéey bi ni ñu leen tàmmoo tànn leen te dëkk bi rëy lool dëkk yi dëkk yi bari Sénégal lool ñu tànn ñu tànn leen boole leen si ñuy seetal jumaa ji kon loolu jar naa sant yàlla jar naa sant yoon jar naa sant sëñ kon sëriñ bi ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm Euh, di ñaan yàlla yàggal taxawaay su borom defal nañu ndam ñun ñëpp ñu am ci ndam bi am ndam ci liggéey Serigne Touba bi liggéey bi nag ni ma ko waxoon keroog fas naa yéene ànd koog yéen insha allahu taala ndax adduna moom dara nekku fi lépp day jeex liggéey Serigne Touba mooy loo xam du jeex tey du jeex ëllëg liggéey Serigne moo xam mooy loo xam da da nga ci jariñu tey jëriñu si ëllëg kon bu ngeen nekk ci liggéey Serigne Touba bu tedd bi ah boole ma ci tamit ma fas yéene ànd ak ci liggéey bi ma leen xam ne am naa ci mbégte moo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di ñaan suñu borom boole ñu dimbali boole ñu defal ndam wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi